war ngaa gën a mën a sàmmonteeg li sa borom santaane parce que li sa borom santaane jëfin la du julli ak woor rek waaye comportement la comportement d'abord nga set set ci sa yaram set itam ci ci sa environnement ci sa ci sa cadre de vie te nag respecter li nga xamante ni moom la ñu tere ndaxte boo toppee loo xamante ni dañ koo dañ koo tere li nga ciy jëlee rek mooy xanaa nattu bu mel ni mbas bi loolu message la boo xamante ni bu am solo la defe naa loolu war nañ ko jàngat beneen message bi nga xamante ni jàpp naa ko mooy li ci wàllu violence politique ndaxte wax na ko ñu ngi jëm ci élection te ku tudd élection tudd politiciens yi muy nga nekk kii nekk pouvoir walla nga bokk ci kujje politique bi ku nekk yaa ngi yootu dara yaa ngi yootu doon dara waaye sëriñ bi dafa ne loolu yëpp nañ ko def nag ci jàmm ñu def ko ci dal te loolu média itam am na rôle bu am solo bu mu ciy joué ndaxte léeg-léeg violence du diggante politiciens yi rek violence ci ci société bi ci boppam la donc ñin ñi nga xamante ni ñu ngi yëngatu ci wàllu média bu ñu jiitalee éducation citoyenne di ñaax nit ñi ci wàllu civisme di ñaax nit ñi ci bañ a yàq mais ku nekk nga am sañ-sañ am sa xalaat nga indi ko ngir jëmale Sénégal ca kanam loolu defe na kàddu la boo xamante ni bu am solo war naa dugg ci nopp ku nekk ki fi teew ak ki fi teewul ndaxte loolu mooy suñu njëriñ mooy njëriñu Sénégal. en politologue ci loolu noonu nga xam ne jot nga ko wax muy ay jàngale wala bokk ay soññ yoo xam ne sëriñ bi soññ na ko ñi fi teew tey bokk ci état est-ce que tey bu ñu waxee ci wàllu politique. est-ce que amul loo xamante ni xëy na mën nañ ko séntu ëllëg ak lu ñu jëm ci kàddu yi nga xam ne génn na euh, ci politiciens yi ak itamit les coalitions est-ce tamit du doon loo xam ne artu waaw xam nga sëriñ bi moom moom kàddoom toujours daf koy teg ci fu mu ko war a teg bu ñu xoolee langu politique bi wax dëgg yàlla nag xëy na am na lu lu ci baax du ñàkk ndaxte politique du lépp bon ci politique waaye nag bu ñu gisee ni ñuy taxawee par exemple assemblée nationale mën naa joxe misaal boobu te kilifa diina yi ñu ngi ciy wax lu baree baree baree bare defe naa loolu taxawaay bu ñu war a xoolaat la ndaxte politique du saagante du xastante du du xeex politique defe naa idée la ku nekk nga am idée man bu ma yoree réew mi fii laa ko bëgg a jaarale xam nga loolu warul indi problème donc bu xalif bi yëkkatee kàddu googu defe naa politiciens yi ni ma ko doon waxee léegi war nañ koo mën a def seen message yu bopp nekk ay au près de seen militant ndaxte militant dañ koy yar militant dañ koy tàggat mais léegi bu ñu xoolee li si ëpp lu loo xamante ni phénomène la boo xamante ni dafa dafa dafa dem ba ba jéggi dayoo le phénomène de la violence politique gis nañu ci mois de marse bi weesu loo xamante ni kenn mësu koo gis senegal ay yàq yoo xamante ni yu baree bari mais ay nit yu ñu boom yu ñu boom te tey jii nii presque fàtte nañ leen lu mat 14 personnes dee nañu waaw loolu yëpp defe naa euh, message bi mais comme ni ma ko waxee buñ koy yemale rek ci politiciens yi nañ koy yóbbu ba ci taalibe yi ba ci société bi yëpp ndaxte ndaw yi war nañu mën a wax ak ñoom ndaxte lu ëpp ndaw moo moo moo moo moo am doole moom moo am xëy na yenn xadar yi pour dem xeexi loolu yëpp foog naa ku ci nekk si ñun rek war ngaa mën a jëlee njëriñ ci li ci xalif bi wax nga koy doxalee nag pour euh, daal politique bi nekk euh, loo xamante ni euh, njëriñu Sénégal lay doon.